les Sénégalais, Sénégalaises, chers citoyens, euh, information bu bees tax bu ma jot léegi léegi léegi ma ne dinaa leen ko yeggee ci nu mu gën a gaawee Cheikh Omar Diagne instant yi mu ngi police plateau. toog ci gris yi ci karo yi foofu nag ay karo moo fa am Cheikh Omar Diagne ni police plateau toog ci karo yi suba dina jàkkaarloog procureur tey jàkkaarloog procureur moo tax deferewuñ ko waaye suba dina jàkkaarloog procureur procureur de la république dina ko dóor mandat dépôt comparaison immédiate noonu ñu futti ko ba mu set wecc sëggal ko di xool ci ginnaaw maanaam ci taatam ba xam dugal na fa yàmba wala dugalu fa yàmba kon Cheikh Omar Diagne bu fa demee dinañ ko futti di ko xool ba xam yor na yàmba rangale ko moom ak ñoom ñëpp comme nit ñuy toroxale doomu aadama yi foofu rangale leen ñoom ñëpp ci benn saal comparé comparaison immédiate dina ko am mardi dinañ ko futti dem mu dem kaso dañ la futti saal bu rëy ngeen rang yéen ñëpp ngeen di xoolante ku nekk di xool say bagage morom ku ne di gis ñu lay sëggal di xool lu ne loo lu nekk ci ginnaaw affaire yu doy waar lu animé lu kémtaane lu rafetut loo xam ni dalay choqué toute ta vie waaw donc euh, loolu mooy programme bi loolu laa jot a jot kilifa gi nee na ma jéem na ma woo ba sonn mais jotuma nee na lii la buggoon ma xamal ko askan wi que suba Cheikh Omar Diagne dina jàkkaarloo procureur de la république dina ko dóor mandat dépôt pour comparution immédiate ñu fas yéene ko jugé mardi après dinañ ko libéré dóor ko sursis wala amende asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu la lutte continue one love. police plateau toog ci karo yi ak grand boubam ensemble bu rafet jaxasoog. fàqmaan yeeg kon maanaam tey du nalaw dina toog ci karo yi amul mat laa amul dara donc Cheikh Omar Diagne guddi gépp du nalaw te dafa war a julli dafa war a woor suba demee kon le procureur de la république moom dina jàkkaarloog Cheikh Omar Diagne dina ko def dina ko dóor mandat dépôt ñu yóbbu ko rëbës ñu yóbbu ko prison pour comparaison immédiate ñu fas yéene ko jugé mardi kon Cheikh Omar Diagne bu demee kaso dina xam nga ku jaar kaso dinañ la futti imagine Cheikh Omar Diagne kilifa ko day noonu ñu futti ko ba mu set wecc sëggal ko di xool ci ginnaaw maanaam ci taatam ba xam dugal na fa yàmbaa wala dugalu fa yàmbaa kon.